voilà soxla ndaje bi tey euh, dama nekk jiite euh, commission bi ñuy wax jeunesse et emploi euh, ma ciy liggéey ak le maire Pape Bassirou mu am yéene dénk ma ko ci biir loolu ci budget mu xalaatoon ni war nañ mën a tàggat ay ci wàll développement local ak acte trois bi nga xamante ni moom la ñu lu bees la te ñu bëri ci population bi xamuñu la mooy acte trois de décentralisation moo taxoon ñu woo leen fii tey ci salle de bu mairie bu Thiès wut ay participants wut ñu nga xamante ni ñoom ñooy ñëw ay animateurs pour former ces jeunes là pour ñu xam nan la ñuy développé seen gox yi ensuite xam lan mooy acte trois de décentralisation loolu moo waral suñu ndaje mi ñu. ñu ngi toll ci juróom fukk gune ñu ngi leen dimbale ci quartier yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci Thiès ndax booy xool fii am nañ ñaar fukki quartier ak ñaar dañoo jël mouvement développement associatif yi nekk ci quartier yi ñoom lañu jël dajale leen pour waleen pour mën leen tàggat pour ñaari fan bu ñu paree ñu mën def suivi bi pour mën ko yeggale askan wi nekk ci biir quartier yi. choix yi comme ni ma la ko waxee ni ñu ko defee mooy dañoo ciblé mouvement associatif yi nekk ci quartier yi comme am na ñaar fukki quartier ak ñaar ñaar fukki ak ñaar yooyu la ñu tànn vraiment pour ñu mën a ñëw seet mouvement associatif yi nekk ci biir pour ñu mën a ñëw mën leen tàggat pour bu ñu àggee mën a def genre relais mën ko tas ci askan wi.